mbokk internautes yi dalee nag jàmm Moustapha Diakhaté daanaka ay kàddoom yi mu yëkkati ci màggal tuuba gi mu ne a dañu ko war a daal di nag ajandi ndax coronavirus bi lee moom daanaka tardewul sax ñenn ñi nag ci di murit mu daal di commencé di ko tontu Cheikh Abdou Lahad Mbacké daal di koy nag njëkk a tontu daal di nag wax ki nga xamante ni a moom Moustapha Diakhaté ne ko Moustapha Diakhaté laissez les oiseaux de mauvais augure monologuer mu mel ni nag ku koy di ko xamal ne ko xamante ni moom nga nekk di wax na daanaka tegoo ko fenn moom ak ki nga xamante ni nag moo magistrat di nag euh, Amidou Dem euh, waxoon nag ci ñu daal di suspendre événement religieux yu ci mel euh, grand magal bu Touba mel na ni nag dafay choqué sax yenn ci membre bu comité Mouride du communauté Mouride foofee ca diwaanu Touba ñoom nag génn ci noppi gi ñu nekkoon jaar ci Cheikh Abdou Fatma moom mi nga xam ne dafa bokk ci pôle communication bu grand magal bu Touba maire ba futu la def euh, président commission culture communication bu comité d'organisation euh, grand magal bu Touba daal di ne nag euh, ci recommandation bu Serigne Mountakha Mbacké Khadimou Rassoul comité d'organisation bi dina jël lépp loo xamante ni mooy ay jumtuwaay ak matukaay ngir nag ci nag ni ñu ko defee atum daaw te amul nag benn loraange gu ci am màggal gi dina am ba ca sagar xeeñ moom Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma moo ko wax yooyu les propos nag ba mu ko dal di na Seneweb reprendre ko euh, moom mi nag daal di ne Moustapha Diakhaté ak ancien magistrat Amidou euh, Deme euh, wax na leen sax te tudd ci seen tur waaye nag na mu leen ñëpp xam nañ ne ñoom lay daal di nag waxal ne leen nag nañu daal di nag ñëpp daal di nag soobu ci màggal gi loolee la daal di woote nag ci képp kuy murit ñu soobu nag ci préparatif waaj waajtaayu màggal gi nga xamante ni nag ci nag polémique yi nga xam ne moom la ñuy def ci kenn tontu du benn murit boo xamante moom Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké euh, Gaynde Fatma euh, ne nag murit bu kenn tontu euh, bu kenn wax lu jëm nag ci ñi te xam ne 18 safar moom faaw rek ñu daal di koy nag defee ndax nag daaw ñëpp ko doon wax te ca la gënoon a métier ku nekk naan màggal gi màggal gi buñ ci jógee Covid ba dana yokk dana yokk waaye de nee na yaakaar ne rek daaw ba nu ko amalee ba noppi daanaka ab victoire bu éclatante lañ ci jëlee maanaam ab ndam lañ ci daal di ndax nag dañu fa sax jógee nag lu bëri ñu daal ko koy dooraat lu ci lu ci mel ni yenn uh, ci di xew lépp la ñu bàyyiwaat mu tàmbali waat ndax amul benn uh, cas uh, reche de cas boo xam ne dañ ko ci daal di naka nemmeeku moom mii di Serigne Cheikh Abdoulahat Mbacke Gaynde Fatma daal di nag dal ci kaw ki nga xam ne mooy Moustapha jaxate ak ki nga xamante ni tam moom mooy ex magistrat bi nga xamante ni moom mooy Amidou dem ci li ñu duggal seen làmmiñ ci mbiru màggal gi ne a seen yoon new ci ku ñëwul ñëwoo waaye ñetta ne soobu ci ndiggali daan ci dem te